asalaamaaleykum mbokk yi tey la altine fukki fan ak juróom ci weeru safar muy weeru digg gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ñaar ci weeru septembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar fukki fan ak juróom bokkul ci lim yu fàtte yi lim bu rafet la kon tey ci altine ji rafet na li ñu ci gën a taamu moom altine mooy ku ca watu wala ku ca daloo altine ju nekk nag sunna la ci ku man mu wor ko fukki fan ak juróom ci weer wu nekk dees ci tukki dees ci yeggale ab sëy ñaanu bis bi maa ngi sàkku njéggalul yàlla mi aji màgg ji yàlla mi nga xam ne amul benn buur du moom te mooy aji dund ji tey aji des ji tey tuub jëm ci moom astaghfirullah al azim alladi laa ilaha illa huwa al xayu al qayum wa atubu ilayh astaghfirullah bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee képp koo xam ne lu toll ne diisaayu pepp wi gën a tuut ci ak rëy moo ngi ci xolam sunu boroom dina këpp xar kanamam ci sawara xaddis bi ahmad moo ko nettali qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam man kaana fi qalbihi misqaalu xabatin min xardalin min kibar kabbahu llahu ala wajhihi fi nnaar rawaahu ahmad waxtu julli yi suba waxtoom naa tàbbi juróomi waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak benn tisbaar benn waxtu wu tegal fanweeri simili tàkkusaan ñeenti waxtu yu tegal fanweeri simili timis juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak ñett